di liggéey bëgg ko teg ci cadre bi nga xam ni képp ku bëgg sa réew dox ci nga koy teg te ci loolu la ñu nekk bi ci des nag mooy comme ni nga ko waxee man benn ambition laa am yàgg naa ko wax mooy je veux être un serviteur de mon pays je veux être quelqu'un boo xam ne je veux servir servir le Sénégal man xam na politique tamit mën nañ ni loolu ci servir sa pays waaw li ma li leer ba leer mooy man ma pôle politique Moi, je veux pas être un président de la république Je n'ai pas les capacités pour diriger le Sénégal donc je ne veux pas être un maire je ne veux pas être un député je ne veux pas être un poste électif Donc, il faut aussi que la différence des choses laissons les politiques faire leur politique nous les opérateurs économiques nous dem notre économie comme nous le ko il y' a certaines personnes qui ont dit li ci social en contrepartie partie la population mais man li xaar la population Sénégal c'est ñu ñaanal ma ñaan bi nga ni la mais je n'attends rien de la population du Sénégal. Je ne veux pas être man président du Sénégal je n'ai pas les capacités il faut être honnête il faut être honnête en soi-même je ne peux pas être président de la République je ne peux pas être un ministre je ne peux pas être un maire je ne veux pas je ko ñi nga ñom ñom ko gëna soxlo ya y a des milliers de Sénégalais yo xam ils aspirent à être des d'autres choses am nañ capacité mais nañu def la part des choses da ngay gis un commerçant qui se lève un jour rek ni way je vais être maire de ton quartier parce que amna lo loo defal quartier bi en contrepartie nga ñëw di len laaj seen ay voix man doxuma ci lolu mm. man limay dox moy limay def yalla rek moo tax ma di ko dox mm. man poste bima ma soxla ci aduna moy un serviteur de son pays ba pare nekk taalibe haji malik bu mo nek leneen wax deug yalla man

mangi servir sama dëkk ci li nga xam ne mooy domaine bi nga xam ne maîtriser naa ko mais boo bëggee sonal sa président de la république wala di bëgg a sonal sa population mooy yaakaar ni yow lu yëngatu ci réew mi rek am nga ci poste wala am nga ci baat man je demande bëgguma benn poste li ma bëgg nekk mooy un opérateur économique un serviteur de son pays un serviteur de son peuple ci domaine bi ma xam